yàlla de. Mm-hmm. dooma laaj Ala Ndiaye. waa anamu. dafa cancer. allahu akbar wuy sama ndey. Eh, laaj laaj ma fan. ay ay ay allahu akbar. boo ko gisaatee bu jéggee soo ndox doo ko naan. wuy sama yaaw jaal ko yaaw yaaw jaal ko kañ nga gëj gis njaay ci dara bi. loolu moo ma jaaxal ni. waa léegi ñu pare foofu mbay nekk ci man. yow eh. mbay nekk fa di raxas ay ah. uy sama yow looy wax ni cancer wax ma la cancer de cœur bi cancer de l'anus ndekete moom si gars yi la bokk dañ ko blessé ah ah muy ah, maa jekk ma ne kii tuuram gure gii ak feccam bii yaabam bii mu yaaba département bii ndekete day day jàmp puuf ma mm-hmm. man yàlla dama dimbali ñu mm-hmm. ma ñu ma fa ñu fa dimbali yëpp Mm-hmm. bu ñu génnee na waaw bu ñu la laajee lu tax yaa Kouthia nekk ci la compliqué Ndiaye mm-hmm. maa ko indi TFM ñu dem ba ci biir nit ñi woo ko ne ko yaa gën a aay Kouthia berul kii dalay tardel dafa soxor dalay nag mu dem topp ñooñu laaj ñu laaj ko lu tax àndatoo Kouthia mu ne waaw Kouthia non da ngay waaru dafa lii kërëb kërëb mm-hmm. ma bàyyi benn jour rek ma gis li ma metti point com ñu bind Ndiaye pleure position de Kouthia ma dugg ci clique rek. Hmm. gis ko mu naan waaw kooku nag waaye yaa Kouthia loolu jot rek Ndiaye di jooy. <laughs> di jooy ay jooy yu metti barki Seydina woon ma ne waaw. Hmm? ma avancé dégg ma naan waaw man li ma Kouthia def. Kouthia daf ma jaxase ak. dëgg la. benn femme bu soog fekk Amina Poté bu toog mu ne ko yow problème yi ngay am yëpp xam lu sa problème am. Hmm. tant que demoo ci baal ma àq. parce que yow Kouthia moo la indi biir TFM nga nekk fii mu indi la. fexe nga am embauche nga dem ba ci biir xeex ko. Mm-hmm. boo toogee doo tudd gërëm booy sant da nga naan maa ngi gërëm Ndiaga Ndour ak Bouba fi indi te ñëpp xam nañ ne ku caala fi indi. Mm-hmm. yow bilaay Amina Poté maa ko njëkk ci ko ci benn baar bu ñu naan chez Mbaye Ndiaye. waaw Mbaye Dia. Mm-hmm. sama benn copain. serveuse bu nekk ci benn baar. dama ko nopp. ma ne ko yow la liggéey mënuma serveuse laa. Mhm. ma serveuse la mënuma baar bi. Mhm. ma ne ko xaalis boobu ngay fay ma ne ko ah, bu ndaw tu nga xam ne pas vingt trois ans mhm. baar. fekk man xam naa ne bu bu bu serviré ba xam nga rek gars dañ koy réglé. mu expliqué ma nag ne ma lii moo tax ne ko am benn télé bi waaj bu ñëwee dinaa indi. télé bi ubbee Youssou Ndour wax ma ko première première jigéen ba njëkk teg tànkam TFM Amina Poté di tudd. man hmm. maa ko génnee foofu ci milieu boobu dóor ko fa. la la te wax du wax sa bët la. li indi sama problème ak moom benn dama dégg ñu ne ñoom euh, mannequin boobu ñoom ndey ndaat ak yeneen kel dañ la doon fay ay salaire yoo xam ne ñoom ëpp góor ñi fa nekk ma yëg ko nag syndicaliste